parti socialiste patrimoine la warul nek parti le xamné sur plusieurs élections présidentielles nous am candidat da faté fàtte ñu jotule plusieurs en ben rek non à cette époque là ben la woon waaw waaw mu ñëwaat légui doole tollanti fa lañ jëm loolu lañ doon bañal té tay buñu doon def évaluation ñun en tant que taxaw bu joggé parti socialiste ak ñom parti socialiste la vocation d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir Nous, au moins dem nañ élection ñun dem nañ biñu biñu biñu ñu bi ñun maire da sa raisonnement continuer ko dañu génn gagner ah oui bien sûr. génn gagné dégguma ne dafa gagner ce combat là. voilà su doon dañuy def ay ay ay. Euh, élection seen biir primaire ak yooyu. waaw Sall gagné voilà kon ñun dañu génn gagné de l'accepter ci leneen bu doon alliance parce que fi mu ne ñëpp ay. alliance Sall et Barth et Alioune Ndoye. numéro 2 numéro 3 loolu moo fay alliance bi ñu def ñun alliance yi ñu def. tey bu ñu ah, xoolee perte parti socialiste ñaata kan ñaata ñaata député la ñu am ba fi ñu toll ni ñun ñaata député la ñu am bu ñu koy xool ci côté boobu. Mhm. ñun on a oh, tiré da ngeen nax waa Sonko yi de <laughs> moo tax ngeen am. ne <laughs> xanaa du naxante politique du ah, ah, ñun ñoo leen nax wala ñoom ñoo ñu nax point d'interrogation. dama ne dama ne parti politique. oui ñun parti bu ñu xoolee ñoom position bi ñu taxaw tey. ak ñun position bi ñu taxaw ñoom ñoo gën a am problème kuy xalaat ne nag ñun dañuy dem remorqué wu si Amadou Ba tu te photo bi photo bi ci biir campagne la. je sais on sait l'histoire de cette photo. du dëgg mais du man waxuma waxee ma photo bi de. ñun ñun ñun xoola ma fàttali tamit ñun rek ñoo fi parti boo xam ne dañoo bokk ci pouvoir ba pare génn dellu opposition ñun ragaluñu opposition de. yéen rek Idi def na ko. dama ne ñun ñun ñun Idi kañ la ko def. Idi dañ ko daax. bi mu ci tollee déedéet. non non Idi dañ ko daax. dañ ko génnee non il parle de de 2012 bi Idi génnee quoi. waaw dama ne Idi dafa toog ba. un an la may Macky Sall comment da déggoo ne wa dama né ñun ño fal Macky Sall bokku ci coalition bi Benno bokku Yaakaar ñun ñoko sos ba pare génn dem delu dans l'opposition Benno bokku Yaakaar ñu wa defaatal ñu offre waxna ko fi Khalifa Sall proposé nañ ko sa premier ministre mu tax mu ci biti comme ñun ñu opposition gis nga politique dafa am lo xamné yalla moy joxé da ngay gëm yalla du dëgg ñun yalla ci rew ñu mais jox nañ leneen mairie Dakar jox nañu mairie Dakar du dëgg. Hmm. xëy suba Abass Fall da koy nangu de. non Abass mënul nangu dara Abass gis nga arme bi muy wane nii. Hmm. tax mu ñàkk ko. Hmm. moo ñu koy gën a Dakar ki ñu ko fal pour la pour mu liggéey. génnal nga laaj Dakar way. Bart mi ngi liggéey wala liggéey. mais mais loolu aussi euh, def na équation ñu bëri c'est-à-dire la force de de Khalifa de taxawu euh, c'était le département de de Dakar quand mais élection présidentielle moom fépp dañ leen fa gagné. waaw ba tey ma ne xam nga loolu du du contexte du du du du du du baromètre. ah si ah, élection présidentielle quand même. du baromètre élection. bi mu demee di di expliquer élection baromètre yi ñu doon joxe c'était des baromètres. non non non loolu du baromètre. dama naan xam nga élection bu nekk contexte am. tey élection législative. oui élection présidentielle ak prés élection locale du benn. surtout que politique mooy ni ngay mouvoir ci contexte yi justement. mais expliqué naa la que élection présidentielle bi gis nga nu mu tëddee. dañ leen sot quoi Macky Sall

bu ñuy dem élection ñu tëj ma ba ci biir campagne ñu génne ma damay gagné xam ngeen sénégalais yi ni ñu xalaatee. boo xam ne candidat Macky Sall du gagné te xamoon nga ne Macky Sall moom lay jàppale loolu la ñëpp jàppoon donc. xamoon nga ne Macky Sall non Macky Sall mënul joxe réew mi ku ko neex. non yow yow yow bi ñuy dem ci élection Abdou Diouf organisé yow xalaatoon nga Amadou Ba ak Macky Sall ñu seen seen seen rupture de ban boobu xalaatoo ko woon wax dëgg yalla mu yegg fofu mu foofu xalaatoo ko won ba Macky Sall dem di jouer contre son propre camp hmm. donc lolu xam nga passé na mais lolu analyse bu bu bu la donc donc yow sa gis-gis élection présidentielle ni mu tëdd japp nga ne bu ñu yeneen élection mënu tëdd noonu. parce que par exemple 2012 Macky Sall dafa gagné. waaw dem législative gagné. Abdoulaye Wade c'était pareil. aujourd'hui buñ démé demee élection gëmoo euh résultat yi génn ci présidentielle. mën na génn sélection législative. xam nga sànq moom dafa ne. wala hmm. yow yaa ko wax ne opposition bi ñëpp noppi. waaw. te pourtant ñii ñaata weer lañ def. comme ñett weer cinq xaw cinq mois ah, cinq six mais ñoom. seen opposition. Hmm. mooy seen i wax démb. mooy seen propre opposition ñoom. dañu waxante dëgg rek opposition bi ñi war a nax taxaw opposition dëgg ba léegi génn guñu ñu ngi taxaw lan moo tax Sonko génn ñi nag tàppat yi génn leen kaay leen loolu dafa mel ni waaju taxaw rek taxaw sa biir ëtt yor sa doole gisoo koo xeexal. taxaw génn leen génn leen génn leen ñu xeex génn leen gars yi toog gars yi tam jàng nañ politique xam nañ politique mais élection législative nga ne euh, assemblée moom c'est sûr que bon xëy na dinañ si ñëw benn taxawaay bu Khalifa def wane son leadership ne dama jóge sa élection je vais à la conquête de l'Assemblée nationale aujourd'hui waaw taxawaay boo boo buñ la wan am na loo xam ne politique loo xam ne dañ koy dox ci suuf am na loo xam ne Khalifa ñun suñu leader la dañ ko wóolu

te pourtant jàppale na ko ba mu nekk maire de Dakar Khalifa Sall nee na moom politique ci moom la bokk ci ADN la bokk du retraité politique mais tamit du moom mooy ñëw ne man la ou rien. et 2029 si je me trompe pas il aura plus de soixante-quinze ans. ba tey. il ne pourra plus être candidat alors. ba tey mais nag Khalifa Sall du genre nit bi nga xam ne day ne man bu ma mënul dem rek kenn du dem. mais c'est-à-dire loolu kan mooy toppati si koo xam ne mënatul. concourir euh, à, la présidentielle. mais pourtant topp nañ ci ko xam ne nek chef de quartier mouvement bi du dox ba ñu am ay cër li ñu jot am asnew. moment biñ koy am moom mënutul won nek dara parce que bobu mi ngi liggéey pour ñu nek ci ginaaw. Bobu mi ngi liggéey pour ay rakam contexte politique va changer. politique dafa am rajeunissement am na ko wax légui, hmm. ñaata jeune mo ci nek. c'est une question pertinente président Sénégal 44 wala 45 ans la am. Hmm. du dëgg loolu c'est un signal. kon Khalifa euh, dafay mel ne loolu gunge la am fi Khalifa loolu gungé bobu daf ko daf ko prouver dafa yag gungé ay jeune ok bu démon tay ba tam mu lèr ko né mom mënul dem. Hmm. rôle bobu du jafé ci mom pour mu joué waat ko parce que yag na ko joué. socialiste. gis na ko men ne Ablaye Wilane mu ngi koy mu koy prôné. apparemment ça va parti socialiste war nañ def ben conclave pour waxtaan yu yu mel non alors aujourd'hui ak waxtaan am diganté khalifa ak parti socialiste est-ce que réellement aujourd'hui am nañ sens sous les socialistes retrouvé finalement comme ni ko bi ma bima mu waxee sànq nee na ma loolu dama ko bañon réponse bima pon tontu woon laay tontuwaat xam nga mooy lan gis nga ñooñu tant que Benno Bokk yaakar mi ngi woon ci nguur gi ñi nekk ay